Euh, Lida dafa yàgg fii ñun ñii sax bi ñuy toxu si fii fii lañ fekk ndox mi fii lañ fekk ndox mi ba pare ndox mi day dugg gis nga limitation kër yi fi mu yem foofu lañ koy dañoo mujjee augmenter suñu buntu kër yi yokk ay escalier ay yëpp des fois maire bi bu ñu ñëwee dañuy jéem a toj sax te fekk ñun toj bi du dara yokk bi du dara dañu gis ne ndox mi day dugg ci biir kër yi matériel bu baax amatuñ ko benn taw rek dañuy doyal waaw kon dañuy ñaan maire bi dimbali état surtout état nañ dimbali ñu ñu xool lii ñu jëm ci benn benn suivi daal parce que defar nañ ko nee nañ fële ba muy dem géej mais suivi am waaw parce que lii su amul suivi aussi mënoo defar leneen il faut ñu dimbali ñu tamit ñu parce que xale yu góor yi sonn nañ ñëpp sonn nañ bu xasee taw nit ñi duñ am fu ñu aw chaque jour gis nañu ni dañuy tilim sonn di ngacc doo tara añ doo tara def dara dangay ngay ngacc ba bëgg dee waaw kon daal ñu ngi ñaan suñu dernier moo rek mooy nañ ñu dimbali ñoo defar ko waaw waaw ñu wax monsieur le maire ne ko fii sa dëkk la fii koñam la waaw kon naka ko ñëw defar ñun ak moom ñu àndandoo defar ko ñun ñu ngi def li ñu mën moom nañoo yokk parce que doolee jënd non du nawet bi sax xam nga boo ne nawet bi rek day mel ni da ñu fekk selon tey ñuy nettoyé ndax nawet bi da si dollaku mais li mën naa ne man fi laa fekk ñi ko fi fekk tam nee nañ def na fi vingt ans man dama yaakaar ne irresponsabilité waa gox bi da si bokk parce que am na ndox boo leen njëkk a gis fële mënuñu concevoir ndox bu jógee Sacré-Cœur mermo zone bobu yëpp ñuy ñëw di versé wu fii te amul benn solution du day versé wu day jaar ci tali bi nga xamné mo fi benn tali bo xamné ne fa la ñëpp di jaar ñun li ñuy def ni bu ñu ko deful nit ñi bu tawee duñu mëna traverser a tax def certes que suñuy commerce mo nekk dans les parages mais dama yaakaar né li semaine bu ne pas yaangi woté réunion réunion du ko faj il faut ñu trouver benen solution parce que bu ñu ne maire am na man gëmuma ne maire am na yoof parce que bu amone yof duñu bayyi au eaux yi di joggé fu né di verser wu fi té amul benn solution depuis presque longtemps du taw bi moo tax mu melni li lii lu ci dollaku la rek mais régulièrement loolu nga filmer fele ci kaw mom lañuy dundé régulièrement wala lu ko ëpp bi benn bu toj la mais ñaar day toj ci journée bi day fess del del del del kenn mënu fi noy ay eaux usées la bu doon sax ndoxu taw day ñëw jàll nga ne ndoxu taw la mais bu ñu ko xoolee xam ne lii yëpp ay eaux la parce que taw bi arrêté na depuis sa suba mais lii di versé wu si kër yi lay jóge comme nag maire bi jógul def li mu war a mën a def man dama jàpp ne waa quartier bi war nañoo am fulla ak fayda ak ñi nga xamante ne ñooy jeunes yoof ñu def comme waa Cambérène li ñu defoon te xam ne lii wax faju ko waaw maire bi moo la ko gën a xam benn jour yëngal nañ fi mu yónni fi benn adjoint adjoint bi ñëw fii euh, xawma un certain Abdou Naar wax wax wax wax bàyyi dem bi ñuy wax sax man dégluwuma leen dama ne leen ñii ñoox ñi fi nekk ñoo yem ça veut dire ñu jiite xamuñu ay wax foog ñu jëfante ñoom wan leen ne lii waratu fi versé wu waratu fi versé wu parce que dem nañ ONAS di def réclamation bi bi ñu demee ñañ fa fekk dañ nañu dañ leen leen wax benn secret boo leen yëngalul lii du fi mos a dañ mais mel leen ni waxuñu leen ko xam nga loolu rek c'est kon nit ñi solution mais chaque jour c'est comme ça chaque jour li ngeen di gis ni sax dafa tane li dafa sérieusement ndax daaw ñun ñi fi liggéey toog nañ 3 mois tijjiw ñu ndax ndox mi demul woon fi ne moom amatuñu solution quoi jaaxle nañ trop man koy xaar du population APEXI rek même boo duggee biir Yoff gis nga ne foofu sax au usé yaa génn ci dëkk bi te yoyu yep mu ngi ci euh, Nord Foire Ouest Foire euh, Mermoz Sacré-Cœur nyom daal ñoo ñu gën dañ war a jël seen ay eaux usées bu ñu paree ñun ñu sotti ñu quoi ñun ñu nekk fii di démerdé wu pour que mën ko fi jëlee solution bi mooy na population yof am full. population APEXI am fulla nek ben guum ñu jóg xeex li bare tali bi def li ñu def riposte wan len ne ñun mën nañoo def comme yenen deke yi def parce que wax ji dafa bari trop chaque année ñu ngi réunion Daw man maa doon jël oto di ko fay fi may fay tracteur bi mu ñëw tubba mbalit mi tubba li fi nekk yëpp kenn fekkuma si man maa koy fay personnellement donc kon bu nu demee ba tollu foofu aussi benn instant foog population bi jóg ñu xeex ka benn yoon mu jóg fii